Pape euh, dama lay siyaaraat bu baax a baax a baax. waaw di la di la laaj rek lan kàddu nga ciy sànni. waaw maa ngi lay nuyu di la ziare tey ñu ngi fii suñu bërëbu rakk ji tey jii tey fii tey suñu mbégte la parce que tey artiste boo gis fii lay ñëw. waa di wax Pikine waaye nag ni mu ciy wax de comme maa ngi fii ci biir place bi fii amoon lu mu lu waroon a génne rek ma amoon lu ma doon benn tubéy bu baax bu ma sama rakk ji jox mu ngi nii. waaw mu ngi fii si cité police buntu kër Jibi Ama si boppam. muy nu mu tudd sax daa. dab sob waaw di woo pikin waa yëpp ñuy ñëw di fi jaar nag. waaw tey fii laa yendu xam nga di nuyu liiru ak ñi ma fi fekk di la remercier nag di nuyu Sénégal waat di nuyu Sénégal di wan ni ñun ñu ngi sant yàlla bu baax a baax parce que lii rek man damay sant yàlla man man man Pape waaw parce tey gis nañ ci benn avancement bu mag sax li ci lii. Euh, su ma juumul moom samedi du ko fi fekk. incha allah yàlla na waaw samedi moom lii nag damay gërëm waa diaspora bi yëpp. muy waa waa Touba yi moom ñoom dam leen di ñaanal dam leen di bool dam leen di bàyyi ak Cheikh Ahmadou Bamba. dafa am ay ay ay mbokku taalibe yu nekk Touba bugguñu ko tudd seen tur. mais gis nañu ñaani seen loxo ñëw na Sénégalais yi ñëpp a génn ñëw xoolal soo ma joxu rek jox nga liiru dégg man man xaalis bu ma lii nii xaalis ma jot nii musuma koo jot nit musuma ko sax envoyé dégg nga kon loolu sant yàlla la kon daal li may waxaat mooy di gërëm Cheikhou Kouyaté waat Cheikhou Kouyaté ñu ngi lay ñaanal bu baax a baax tey dafa mel ni Seexu Kuyaate Pikine la dëkk. billaahi wallaahi. doomu waaw. Mhm. Seexu Kuyaate. maa ngi koy ñaanal lépp lu mu bëgg ci li muy def nii. suñu borom dina ko defal. parce que nii la lii mooy jaamu lii mooy jaamu yàlla. li Seexu Kuyaate def nii. ñi may woo nag pour ñu ñëw jàpp ñu ngi biir bawoo. waaw ñuy def ay ñuy def kii la ñu social la ñu. ku mel ni Birane moom mu ngi ba biir bawoo di xaritu mbay toos. Lamine tamit mu ngi ba Bilbao di xaritu Mbaye maa ngi koy wo Omar Gambien Omar Gambien maa ngi lay woo nga ñëw jàppale xale bi moom it di xaritu Mbaye Tos ñoom ñëpp ñu ngi ba Bilbao As booy tamit maa ngi koy woo Bunaama moom mu ngi mu ngi ba Maroc képp ku nekk Maroc soo ne Bunaama di nga xam ku may wax Bunaama def ko te lu baax la nekkoon polisu Géejawaay polisu Caaroy tey mu ngi ba Maroc. def katu lu baax nga te du tey rek nga ko commencé def maa ngi lay woo Bunaama di woo As euh, di woo àll bi nekkoon makatu caaro yi moom tamit mu ngi ba euh, Italie mu ngi ba Italie ñoom ñëpp maa ngi leen di woo ñu ñëw taxaw parce que xam naa ni man njortu naa balaa samedi xale bi dina dem lii ma gis nii bu continuer balaa samedi dina dem wax dëgg yàlla euh, lii rek la jullit mun jul moromam jullitam parce que tey li ñu doon woote yëpp affaire baa ngi am avancement boo xamante ne tey tey ñi ma jàpp ñi ma doon jàppale pour ñu feebar pour ñu dimbali leen li booy bi am sax amuñu ko parce que ñëpp a ngi ciy jàpp ñëpp ñëpp a ngi ciy dugal seen loxo man kii nii tey sànq sànq wax na ko booy liiru am na ko ko envoyé sax trois cent cinquante francs xam nga ne kooku tey bu yoroon cinq millions non da koy yóbbu may woowaat suma frère suma xarit muy Kéba Kanté Kéba maa ngi ñëw léegi léegi sa kër maa ngi ànd ak gars yi Kéba maa ngi fay ñëw Birane Ndour yow moom du ma la woo yow damay fokkati sa loxo sama nit nga lépp li nga yore dina ko fokkati ñëw nga ñëw jàppale yow sama nit nga jaru sax ma lay woo xam nga di woo nag mbër yëpp lu waay mën ñëw def ko ma njëkkee si suñu suñu suñu leader fi muy Eumeu Sène ma si ma si woo Ama Balde di si woo Boy Niang ñaari artistes pikinois yi fi nekk ku mel ni Pape Diouf ak Wally Seck ñun ñu ngi leen siy woo maa ngi dem ba parcelle di woo Modou Lo mais nag euh, di woo Balla Gaye andaw ñoom ñëpp waa kër Aziz Ndiaye yëpp Aziz Ndiaye Khalil badu ñoom ñëpp Tafa Buuju Liiru Jaan kontaan naa si yow Liiru gis naa sa sorti rafet na trop di lu euh, sorti jamaïcain bi di remercier Lutte TV di la remercier waa Wasaare vraiment di woo ñëpp di wax badu gërëm naa la bu baax a baax a baax Awa Balde tamit jàppale ñu si moo géet xam nga mu ñëw jàppale xale bi kontaan nañu parce que tey suñu xool dafa sedd affaire bi daal am na loo xamante ne am na changement bu mag a mag a mag maa ngi gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp lépp loo leen def ci xale bi rek yàlla ko suñu borom fay ñaanal naa ñëpp di ziar ñëpp. loo xamante ne bëggoon naa ko ñu waxtaan. parce que ñoo xamante ne d'habitude ci réew mi. Mm-hmm. yu mel nii bu amee foo jaar ñu jéem a wut ay porox ndollu ba joxe seen numéro bopp gis nañ ko ci liggéeyu tubaa jëm ca kanam gi am na ci ñeneen ñoo xamante ne ay arnaqueur lañ def nañ ci seen i numéro téléphone di joxe est yu mel noonu yéen ngi koy sóoraale waaw loolu dal na ma léegi léegi tey ci suba tey ci suba la ma dal la ma benn waay woowee ci numéro inconnu ne ma man la moo géet waaw moo géet waaw mu ne ma man la moo géet bi mu ne man la moo gét mu ne ma dam lay yónnee dam lay yónnee cinq millions un un million. léegi nag lan moo nekk sa compte ma ne ko non man dama am cent euros bu ma récupéré léegi sama compte dara nekku si. dindi naa li ci nekkoon yëpp mu ne maa ngi lay envoyé léegi kii nu mu tudd un million. léegi mu ne ma cent euro yi naa ko dugalaat sama compte. ma ne ko amul problème xa après léegi soo ma woowee ci numéro normal naa ko ci dugal si la woowee liiru bii liiru bii tamit mu proposé ko cinq millions. si laa woo liiru ne ko kooku arnaqueur la dégg nga fexeel mu woo ci numéro normal mais bul ko envoyé dara comprendre nga tey jaamu yàlla bu mel nii tëdd ñëpp di ko dimbali ñoom ñuy xool lu ñu jëlee xaalisu xale bi loolu tamit ñun rafetlu wuñ ko mu dem seeti ci leneen parce que man loolu du jàll fii si man mm. xam naa ko bu yàgg xam naa ko xam naa ñi koy def lii ñun rumeur yi jot nañ ci bu yàgg woo na ma tey mu moo ma yees ci téléphone ci benn numéro inconnu numéro baa ngi nii comprendre nga maama bi ma woowee nag si laa ne ko nag woo ma numéro bu ma xam parce que numéro bii du ma xam kan la da may woo parce que man du ma jël inconnu da may woo soo koy dimbali jarul may dugal xaalis da ngay dugal li ngay dugal ci laa gaaw woo kii balaa muy parce que ñaari numéro yi ñoo nekk ci affiche sama numéro ak numéro liiru ci laa woo liiru ne ko bu la woowee bul ko dugalal dara tur moo géet la joxe waaw tur moo géet la joxe tey xam nga tey ku ñuy am na ñoo xamante ne duggalal nañu sax dug man yàgg naa jot xaalis te ñoo xamante ne sama doom jarul ngay laaj xaay duggalal ma temps. mbali nit rek doo def nii daal waaw jéggal nañ ko nag waaw jéggal nañ ko yàlla na ko yàlla defal jàmm jéggal nañ ko ñun moom jéggal nañ ko waaw waaw jéggal ko comme ay jullit lañu jéggal nañ ko waaw. jërëjëf liiru mbokk yi dégg ngeen lépp loo xamante ni waxtaan nañ ko fi mu doon loo xamante ni képp kuy jullit ñu ngi lay ñaan nga ñaanal xale bi di jibi yàlla suñu borom fëgg boppam ba mu jugaat delluwaat ci ay activité am léegi da ngay wax numéro bi nga xamante ni ku la ci contacter mën na la jot. waaw parce que yi man xam nga gars yi liilu lañ may woowee mais sama tur bu nekk sama carte d'identité Ibrahima saar la. waaw at sama numéro. muy 77. 168 76 12 77 168 76 12 di wax gars yi ni man sama numéro bi moom moom la gars yëpp yor ba diaspora bi ñëpp ku ci yónnee xaalis ci sama numéro nga ko yónnee waa ilaa wala numéro Pape Sarr 78 bi. Pape Sarr ay ca wax ma sa numéro bi. waaw suma numéro bi 78 euh, 83. mooy suma numéro. jërëjëf waaw jërëjëf jërëjëf. yàlla na yàlla defal jàmm yàlla defal leen xéwal ñoon lañ leen tàggoo ci tàggoo bi nga xamante ne moo dul tàqali ko. ba ëllëg incha allah jërë ngeen jëf.